jërë ngeen jëf borom gëmuma daanaka daanu daan rek la gëm di Yaxya Jóob Yékini feneen lay daanoo ko jógati waaye du doonate ci lambu ji gon ak baasul gi bàyyi na bëri bi leen l'observateur roi des arènes ba woon di Yékini démb la wool journaliste ba ñu ñëw mu ne leen dafay bàyyi bëri ndax dof mooy sàppi waaye mbër dafay sippe ñaar fukket ak ñeent def na ko ci arène bi kon ëpp na doy na sëkk nee na it amul dara lu ko sëkkatal ba tax mu ne mooy bàyyi bëri moo ko xoolal boppam ba mu neex ko mu tekki ngembam te bu lépp aju woon ci moom Yékini kon bàyyi na ko yàgg gis na ne mi ngi soog jot moo tax def na ko l'observateur xëy ak ñun ci ñaar fukki date ak juróom yi ñu gën a bàyyi xel ci dundug Yaxya Joob Yékini ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février atum ci weeru octobre 2016 di démb gi mu ne dafay bàyyi bëre lépp mi ngi ci l'observateur la tàmbali bëre dóor kàdd gi la njëkk daan fukki fan ci weeru août atum ci victoire la duggee ci làmb ji defet la ca génne ne Lac de Guiers moo ko daan ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru sulet atum 2016 yéenekaay ki nga xam ne moo di Amadou Kati Diop ni ñu ci biir journal bi def na carrière bu rëy alaaji ngañ jaan ñu Yékini mu bàyyi bëri fu mu jaar jur ab vidde ci arène rek am nga ci lu la metti wal fa dinañu Yékini na fa carrière mbërëm enquête yéen kaay nañu mbër kaamil champion pire di Yékini retraité ci bëre yéen bi nañu moom Yaxya Diop Yékini def na ci arène bi fukki at ak juróom fukki victoire ak juróom-ñeent am na ko ca benn niil diggam ak Moustapha Guèye ñaar yoon la ma sa dégg muñal ci carrière am Balla Gaye 2 ak Lac de Guiers 2 ñoo ko Yékini mooy meilleur te mooy wéy di doon le meilleur moom la meilleur di Yékini ni ñu ci xët mu njëkk populaire way wu rafet la bëggoon ci làmb ji ñu am na ko ma ngay dem tekki na ngembam bëreetul bàyyi na bëree dafay nit koo xamante nag baaxawul di xool ginnaawam li weesu weesu na taalibe cheikh bi nañu li mu waroon def def na ko ci xët mu njëkk sunu làmb ñu fekk ko fa moom Yaxya Jóob Yékini mu nañu waxtu bàyyi bëre moom moo jot moo tax def naa ko ñaar fukkeet ak ñeent ku ko def tàkk ko ngemb na sëkk bu kenn a bàyyi wala boog damaa wirul wala dafa am lenn sama wàllu wér-gu-yaram ma maa ko bàyyil sama bopp laa si ne kay nañu gone ak baasul gi roi des arènes ba woon Yaxya Jóob Yékini bàyyi na bëre waaye bàyyiwul lamb ndax dafay doon promoteur pensionnaire ya ca kaso bu rëbës mu di ñi caabi féete ginnaaw ca 100 mètres ñoo ngi becc seen i njàmbat bi leen le quotidien détenu ya ca kaso bu rëbës ñoo dem ba mënatuñu muñ na leen garde yi di def foofee ginnaaw mutinerie ba fa amoon yéen kaay bi nañu lii moo waral ñu dajale seen i ñaxtoo ki njàmbat bind ko ci bataaxal ko askan wi ngir ñu gis ko ak mi lettre ba ñu ko tuddee lettre des détenus de rëbës ko waa asred ngir ñu yeggee wi ak kilifay réew mi la gën a fës ca la nekk ca lettre ba nag yéenekaay bi nañu moo di ñi nga xamante ne ji keroog ba 100 yëngoo dañu leen a fetal ba ñu jëlee ci ay gaañu gaañu détenu yi dañoo bëgg ñu jëlee leen ci kaso yi ndax seenu nekkin nunguwul ak nekk ci kaso ki nga xam ne moo faatu woon ca loolee di Ibrahima Mbow l'observateur nañu yaayam Mami Kassé ak Maymouna Samb di soxna sim fi bàyyi ña woon démb ca division investigation criminelle la ñuy Libération moo xëy bind loolee fa mu ko teg moo di ci mbirum imam Ibrahima Seye mi nga xam ne dañu ko doon tuumal wàllu kan yoon atte woon ko ba tëj ko atu kaso président Macky Sall ne woon ca gis-gisam daan ya daa tuuti un an de prison dafa néew wal faji nañu moom imam Ibrahima Seye cour d'appel bu Ndakaaru atte waat na ko tëj na ko léegi ñaari ati kaso yéenekaay bi nañu kii nga xamante ne ji moo justice ci moomi le la mu bëgg lañ ko defal bëgg daal waaw mooy dox nag wutale ministère intérieur ga du am dana am nag parce que waa watu Sénégal day waaw nee nañu pare nañu na ngir jàmmaarloo a ak ñii di wàllum confrontation la ilaha illallah Mamadou Diop Decroix waaw ak ñama àndal day nee nañu ne dox kon wutale marché intérieur ga ministère ga waaw nekkul ngir sambal ndënd na kilifay defee leen de déedéet waaye suñu wàllum démocratie ci boppam ngoon ak ak yelleef kee ñu ko dox nañu kon wutale ministère Macky Sall kon daa génn ñëw waaw ca jamono waaw lan moo tax nag tey ba moom Macky nekk tey président de la République waaw ma ne la bañal kon opposition bi ne leen doo leen dox nag wutali kon intérieur googee ma ne la intérieur waaw danañ ca dem inshallah ñoo cay dem le populaire ne ma la na seere na kon mars opposition bi lé waa nguur gi 14 waaw président Macky Sall félicité na kon Abdoulaye Daouda Diallo uh-huh. ak directeur général de la police félicité jaajëfal ko la tey moo yéene kaay ne opposition bi day waaw parce que ne wu ñëw teggi seen tànk de déedéet ñoom nag nee nañu kon danañu organiser ab meeting day weeru novembre la laas ne le 4 novembre la ñu koy tëgg Mamadou Diop Decroix ci la quotidien yéene kaay ne jàppale ne nag danañu dem kon ci ambassade kon fii ci Sénégal la tey moo yéene kaay ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali yi nga xam ne tamit danañu ko plainte Alioune Sall mi ak Franck Timis waaw ci biir semaine bi danañu ko déposé nguur gi la mu bañ a politiser na kon dossier wu Ndiaga Diouf googe dossier wu Ndiaga Diouf googe yéen i kaay gi nee bu jaaree yoon ba jaar yoon normalement baat li mu jaas amul lu muy dee ah. ma leen dañ koy bàyyi ma duñ ko mën a aate laa la la sabab lu ni mel nag ñaar la assemblée nationale ma ne ci session la ne ubbi na depuis octobre bii ñu booy benn ñaar ma ne la malaanu kii raange yow baat li jaas mu riwuñ ko immunité parlementaire am ne moo ne saax nekk liberté provisoire waaw waaye dossier Ndiaga Diouf moomee ubbi waat nañ ko laa la wax ndax Barthélémy Dias day na muy waxee liberté de ton waaw te moo ni président Macky Sall day moo doon duumaal gouvernement Abdoulaye Wade ba ca jamonoom naan lu ñii kilifa gi ci kanamay njaak nee ma responsable PDS bu ngal mi waaw Macky naan lépp gi la te dossier wu Ndiaga Diouf ba Macky Sall moo daan wax naan justice bi ci boppam kon dañu koo war a def na leer ñi nga xam ne nag ñoo yónni xale yi yi waaw dañ leen a war a xool xam leen yóbbu leen nag daal di leen kon ade Macky Sall day moo daan wax naan ñun day ñu ngi Dias ñu ngi koy jàppale Macky Sall moo daan wax naan Barthélémy Dias da doon défendre boppam laa la wax Macky Sall moo daan wax naan waa Barthélémy Dias ñu lee bu défendre lu woon kon heure bi kenn waxatu ko Macky Sall moo daan wax naan kaaraangeewu Sénégalais day mi ngi ci ndodd gouvernement wu Abdoulaye Wade bi lee Macky Sall moo daan wax naan Barthélémy Dias jàppal ne kon ñun nag ñu ngi sa ginnaaw ñun waa Macky 2012 ci xeex Macky Sall moo daan wax naan baax jàppal eh waay Samba boo àndee ngin daal dara du la dal boo tëddee nelawal sa ginnaaw ba nang waaye boo àndul ngin nag attention lii raam daal sa kaw la jëm li mu jaas nag jàppale ne tey ji la day victime la bi nga xam ne nag maanaam moo ko tëjoon daal di koy génneewaat moom justice boobu moo songati koon baat li mu jaas mu mel ni nag fi gis nga suñu justice bi ah doyowaar ëpp na dañu koy jëfandikoo ngir ay règlement de compte gars yi rajo yeeg di defante waaye justice bi ci boppam kon la ko jëfandikoo réew mi quotidien gis nga justice boobee waaw daanu na de daa daanu de ci dossier wu jaas maa la ko quotidien ne wàllum justice googe article 80 ba ak liñ naan de l'état dañ ko fee war a waa wala déet gaaña wax nañ sax la tribune wax day mooy candidature Karim Wade mi ne élection waa PDS yi am na ñeen ñoo jum wala maa jum ma ne looloy dëgg parce que ñeen mooy Karim Wade lan mooy ndeyug mu toog ca gee ca Qatar yow di yónnee ay message rek mu ñëw file kon ñax doy xibu sonn lool mu yee mayo gànge ñaa ne looloy dëgg ma la candidat a loolay dëgg de ma ne la boo bëggee dégg dëgg PDS ci moo war a wut ab plan B keneen Karim di moo nekk ci biir di liggéey Walf Fadjri ne Imaam Ibrahima Seye day waaw atawaat nañ ko ah tëj nañ ko ñaari atu yàlla ci la ilaha illallah ma gis nga nag wàllum si si si waaw Macky Sall daal mooy di bum di bumi ah. waaw parce que président Macky Sall daa jàpp ne nag maanaam kon ata nga xam ne njëkk nañ yaa juum wala ma day dañoo fas yéene porte plainte laa la wax mooy xale ban rayoon ca rëbës waaw gis nga rëbës koo gee yéene kaay ma jama jàngi nee na la nga xam ne moo fa xewoon ca weeru septembre day jàmmaarloo ba waaw gaañaa nga yox seen doléance de parce que ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw day la ñuy sàkku nag mooy détenu yi nga xam ne kon nañ leen a dóor bal nañ leen génnee kon ñu ñibbi laa la wax tey wàllum justice justice koo gee libération yéene kaay nee na dossier wu Karim Wade bi waaw mën naa ko xeex ba ndekete fa la de laas budget 2017 bi day xaalis bi réew mi war a liggéey war koo dundee waaw Macky Sall daal ba di laat na boppam de na dalaat na boppam lu bari la mu jox joxoon Aminata Tall la wàññi lañ jox Ousmane Tanor Dieng bëri lool eh way Samba dem naa ca la mujj enquête yéene kaay ne ndaanaan bàyyi na la retraite d'un champion Yékini bana Yékini ci tribune sport ne je suis le meilleur barke Rasoulaay Yékini ci la populaire ne lañ waroon a def daal def nañ ko ci suñu làmb mu ne ñaar fukki at ñeent day ci làmb ji la mbir ma doy dew ma nag ndax ay defe dana mit lool waaye supporters yi danañ comprendre Mbaye Seck Diop journaliste sportif nee na Yékini li mu def ak am ci ay ndam ay titre waaw amul benn sportif sénégalais boo xam ne am na ko Kati Diop entraîneur Yékini nee na Ndakaaru day kontaan nu lool ci Yékini li mu am yëpp nag du dara lu dul liggéey rek ak yar discipline Libaas Diop conseil Yékini waaw nee na Yékini day parcours am fi mu jaar noo kenn du moom daanaan biir un parcours titanesque <laughs> alaaji cey njogay ne mbaa faa la reta kor sabel retraité na dinaa la wax après kor sabel googee fan la jóge boo paree ma ne la alaaji